monsieur Abdoulaye Thiam ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci sa nangu invitation bu Rewmi FM. maa ngi leen di gërëm di leen sant aussi c' est un plaisir pour ci wax ak seen bi nga xam ne mu ngi def liggéey bu mucc ayub ci paysage médiatique bu Sénégal. may fàttali ni yow yaaye njiital association nationale de la presse sportive ci diwaanub Sénégal actualité bi jamono ji ci Sénégal ak àdduna wërngal këpp sax rawatina Angleterre mooy raaya bi nga xamante ne Liverpool jël na ko gannaaw kon fanweeri at yi nga xamante ñu ngi doon daw ci ginnaawam bu ñu waxee Liverpool suñu xel dem ci doomu Sénégal di Sadio Mané waaye ban jàngat nga mën a am ci gàttal ci li nga xamante ne moom la ndam lu rëy li Liverpool def. jàngat bi gàtt bi ma ci mun a am mooy que ne xaar bi yàgg na lool lool lool parce que li ñu ko waxee fanweeri at ak cinquante neuf jours ñu ngi toog di xaar yàggaay bi aussi soo gisee ñu koy wax c'est parce que Liverpool dafa nekk club boo xam ne bokk na ci club yu gën a baax en Europe. bokk na ci aussi club yoo xam ne euh, ñu ngi doon employé ay joueurs yu xarañ. waaye boo xoolee euh, euh, daanaka dafa mel ni ci wàllum championnat bi euh, depuis bu ñuy nekkee ligue bu nekkee Premier League ba léegi Liverpool gañewul Ligue des champions c'est-à-dire depuis 1992 bu ñu jàllee nekk maintenant Premier League ba léegi Liverpool gañewul li nga xam ne moom mooy Premier League mais gañe na ñaari yoon Ligue des champions en 2005 ak 2019 bi nga xam ne gañe na ko joué na aussi ñaari final yoo xam ne Ligue des champions la mais Angleterre dafa nekk dëkk bu xaw a doy waar tuuti c'est-à-dire ñoom Premier League bi championnat bi moo leen gënal sax nga gagné Ligue des champions. Hmm. loolu nag euh, xaar bi moo taxoon mu yàgg trop trop trop trop trop trop. surtout aussi booy fàttaliku par exemple am na benn année boo xam ne ñoom ñëpp yaakaaroon nañ ni dinañ gagné te seen seen capitaine euh, bi nga xam ne capitaine bu xarañ la woon bu amoon bu nekkoon sax légende ci par rapport ak joueurs yi nga xam ne jaar nañ Liverpool di Stéphane Gerrard di nekkoon doomu Angleterre nekkoon même capitaine équipe nationale Angleterre moom ma faxastalu woon à la dernière minute doomu Sénégal bi nga xam ne Demba Ba moo jël bal bi ci tànkam dem dugal ko ba xañ Liverpool titre boobu boobu léegi dafa defal nekkoon ci seen ci seen ci seen kii téye leen bu baax. Mhm. Ah, xañ leen tere leen nelaw ba ren jii encore bu ñu demee sax bay waaj a nekk champion. yàlla indi mbas mi nga xam ne moom mooy Covid 19. Mhm. ba ñoom seen dirigeants yi ñu toog seen biir ñu ne championnat bi sax dañ koy arrêté te du ñu désigné mooy champion. ñoom seen fan yëpp jaxasoo yàlla def nag ñu décidé à la dernière minute léegi ne dañ koy reprendre ñu reprendre ko te léegi mu ngi nii gagné nañu championnat bi avant même terme parce que des na encore sept journée de la fin Liverpool gagné ko te mu ko gagné bu rafet trop trop trop trop surtout mu ngi ko gañee devant ki nga xam ne moom mooy Manchester City ci nga xam ne ci wàllum bilan wàllum budget lu mu yor ci budget daanaka mun na nekk ñaari yoon Liverpool ci wàllum notoriété ak li nga mënta wax yëpp euh, mu gagné leen ci gagné bu rafet surtout aussi ñun sénégalais yi suñu doom di Sadio Mané nekk premier sénégalais bi nga xam ne bokk na Euh, ci euh, Liverpool pour mu remporter pour la première fois depuis en tout cas trente ans euh, li nga xam ne moom mooy Premier League. Mm-hmm. bu ñu waxee tamit ci Sadio Mané boobu xëy na pour génne ñi ñu jàpp ni ñoo gën a fës ci raaya bi muy sacre bi Liverpool am dina jafe waaye ci wàllub Sadio Mané ci boppam ban taxawaay nga jàpp ni am na ko ci raaya bi Liverpool am tey. li may njëkk wax d'abord mooy nekkoo ko Sadio gàcce ngalaama parce que képp kuy doomu Sénégal tey jii Sadio Mané ko tuddee ci am fierté d'abord dafa nekk kenn ku xam ne ku am yar la ku am tëggin ku mun lu muy def euh, rax ci dolli bugg réewam euh, bugg continent am parce que joueurs yu bëri gis nañu euh, fii joueurs yoo xam ne dina tolloon nañ ci dimension am à benn moment dañ doon bugg bàyyi sax seen équipe nationale waaye moom tey jii nii boo ko laajoon diggante gagné Ligue des Champions. gagné Premier League ak gagné Coupe d'Afrique lan moo la ci gënal day tànn Coupe d'Afrique bi lu tax parce que dëkkam la. Hmm. donc mu nekk aussi joueur la boo xam ne du yaafu yaafu yaafus daaw nekkoon na meilleur buteur mu dugal ñaari ñaar fukk bi ak ñaar te musul dóor penalty. Hmm. ren jii dugal na quinze bi donc bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñoo porté Liverpool pour mu remporter euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, Premier League bi bokk na si aussi ñoo xam ne ñoom ñoo permettre Liverpool aussi mu gagné woon daaw Ligue des nekk ballon d'or africain nekk quatrième euh, a niveau di ballon d'or FIFA ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, France France football. Hmm. te loolu à part doomu Côte d'Ivoire bi nga xam ne di Didier Drogba benn africain musul ko woon nekk donc loolu ñun sénégalais yi ñun ñëpp te jii loolu suñu fierté la surtout aussi au niveau de l'ANPS ñun ñi nga xam ne li ñuy jiite. Sadio Mané détenir le record parce que gagné na pour la sixième te lii so moytuwul dina nekk encore une septième fois Sadio Mané di remporter li nga xam ne moom mooy titre euh, meilleur joueur euh, di di di. Euh, bi nga xam ne ANPS moo koy décerné te mu tudd désormais trophée de Jules François Bertrand Bocandé mhm. gis nañu kon dayoom mu ngi gën di yokk ci àdduna ci sax clubam ba mu nekk ren ji ni nga ko waxee dugal na lu toll ci fukk ak juróomi bit ak juróom-ñaari passe décisive yi mu jébbal ndax lii dafay dëggal ñi doon jàpp ni kon ñeenteelu place bu mu am ci Ballon bi wees loolu dëppoo ak yoon li ma waxoon rek laay delluwaat ku mel ni Lionel Messi bu gañee Ballon d'Or wala ku mel ni Ronaldo bu gañee Ballon door aw ma lenn li ma ci wax parce que dañuy nekk ñaari joueurs yoo xam ne mun nañ leen woowee ci tubaab ci nasaraan ay des joueurs stratosphériques parce que boo xoolee seen statistique daanaka amul kenn koo leen mun a méngale ñoom ñoo dakk football ci àdduna bi. Mhm. waaye li ma trouvé loo xam ne lii de c'est un scandale c'est pire même qu'un scandale. c'est que at bi ñu weesu ak moom Sadio Mané lu mu jot a def yëpp nekk meilleur buteur championnat Angleterre te de dóor penalty gagné Ligue des champions gagné coupe euh, coupe coupe du monde de clubs amul benn place bu ñu koy jox bu dul quatrième place loolu nag bu amee ñaari yëpp la benn bi mooy critères yi nga xam ne nii nga xam ne ñoom ñooy désigné pour nga nekk mal ballon d'or wàllum France football wala best ci wàllum FIFA ñoom ñoo ko def beneen bi mooy africain bu gul loolu mooy dëgg yow mii sax Gomis tey jii parce que ne soo jógoon fii nii léegi nga ñëw sa koñ nga ne ko dama bugg koñ bii nii ñu tuddee ko Gomis sénégalais ñi nga xam ne foo yaakaaru loon ñoom ñooy taxaw di la xeex. Hmm. ñun nit ñuul moom moo mel noonu buggul moromam du dem buggul kenn dem munuma comprendre au niveau de l'Amérique latine même dëkk yi nga xam ne dañuy nekk en guerre même contre Argentine dañuy voter pour Lionel Messi boo demee Europe ñoom ñëpp dañ mën ko ñu votel ki nga xam ne moom mooy doomu Hollande Van Dijk doomu Hollande di défenseur lii la moom saa Mané di nekk attaquant amul fenn foo xam ne da koy gis ci àdduna bi yéen ñaar ngeen nekk ñaari joueur kii nekk défenseur kii nekk attaquant hmm. te yu attaquant bi nga nekk meilleur buteur nekk meilleur joueur nekk meilleur joueur africain ñu jël défenseur bi ñu teg ko sa kaw loolu teguñu ko fenn amul fenn fu mu am ci àdduna bi loolu africain yi ñoom ñoo dem votel Lionel Messi hmm. ñoom ñoo ko def loolu nag bu ñu buggee yëf yi bougé il mhm. faut que ñuy suttalante suñu biir il faut ñuy sottante suñu biir ñuy jappalante suñu biir bu ñu deful noonu bu ñu dem fenn ce n'est pas parce que je suis gis nga la guerre bi nga xam ne amoon na diggante Senghor ak ki nga xam ne moom mooy Sékou Touré mhm. Guinée mhm. loolu jeex na yàgg na tey jii Guinéen ak sénégalais dañu war a mën nekk benn sénégalais ak malien diggante moo di Modibo Keita ak Senghor loolu weesu nañ ko. Mhm. lu wax ko malien bi moom war a xuri sénégalais bi. Mhm. mais doo toog foofu noonu diggante depuis 1960 ay l'éclatement de la fédération du Mali ñun actuelle fédération bi ñu bëgg a kii moo xeex yooyu di xeex loolu moo tax duñ dem fenn. Mhm. tey jii gis nga Allemagne ak France dem nañ sax ba def guerre. ba ki nekk si ñeen dem envahir keneen ki l'Allemagne a même colonisé la France téye ko rey ay nit waaye tey jii booy wax l'union européenne. Mhm. couple boobu moo tax nga koy wax. Mhm. fàtte nañu loolu yëpp ñu ngi jéem a avancé ñu rek doomu Afrique ñu rek africain yi ñooy nekk ci situation bi nga xam ne depuis 1960 ba léegi ñu ngi nekk foofu bu ñu bougé bu ñu dem bugguñu suñu beneen meram dem ñu ñooy xeex doomu africain saa Mané africain yi journaliste africain yi kese ñoo ko xeex. Mm-hmm. parce que cinquante quatre pays africains bu ñu voté loon Sadio Mané leneen la wax du ñu wax lii. Mm-hmm. loolu nag dañuy xoolaat seen biir. moom Sadio daanaka léegi def na lépp ca Liverpool gannaaw euh, lii di Premier League bi mu jël ni ki démb jël na Ligue des champions ni ki daaw jël super coupe d'Europe jël coupe du monde des clubs daanaka dara deseetu fa moo tax ñuy samp ba xam moom ci boppam war naa wéy ba tey toog Liverpool am dafa war a dem. man de bokk pour man bu desoon si man ak man mm-hmm. Sadio Mané day des Liverpool parce que lu tax euh, joueur yenn saa yi muy jékki-jékki mu naan damay changer pour dem damay changer pour dem damay dem pour gagner Ligue des Champions damay joxe le cas de Zinedine Zidane def na presque quatre saisons cinq saisons ci un très grand club qui s'appelle Juventus de Turin mhm. amul lu mu fa kiiwul jéem na lu nekk joué na fa trois finales mënul fexe ba gagné mu bàyyi mu dem année yàlla suturaal ko année bu mu demee fële nga xam ne moom mooy Real de Madrid année boobu loolu nañ ko comprendre waaye Sadio Mané tey jii jaloore bu mu am ci àdduna yépp Liverpool moo ko ko jox. Hmm. nekk na fa meilleur buteur te du dóor gagné na fa Ligue des champions gagné na fa championnat gagné na fa coupe des clubs. loolu lenn dong mooy tax ngay génn su fekkente ne da ngay génn pour wutum xaalis. Sadio Mané amagul trente ans attaquant à partir de trente ans jëm kaw trente cinq ans. ngay xam ne club yu mel ni Liverpool FC Barcelone ak ñeneen ak ñeneen. non mënatuma fa am place parce que dafa am ay yeneen ndaw yoo xam ne dañ may poussé te damay waaj a préparer samay retraite ma ne léegi damay génn te su génn damay dem wuti beneen xaalis hmm. maanaam damay dem dans le golfe wala ma dem ay championnat yu mel ni ay championnat Chine ma fay amee xaalis waaye tey jii nii jaloore bu mu am Liverpool pour bu mu fa am pour man dafa war a continuer di imposer surtout nag que rien amul lenn lenn luy war a mandargal ne tey jii nii Sadio Mané bu jógee woon daw dem fële fi nga xam ne moom mooy Real de Madrid nekk club boo xam ne boo gën a compliqué ci àdduna. Mhm. dina am place bi nga xam ne am na ko dama ciy joxe benn firnde rek wala ñaari firnde. Mhm. am na kenn koo xam ne mu ngi nekkoon Liverpool. nekkoon sax plus grand joueur même que Sadio Mané nekkoon plus grand joueur que Salah nekkoon plus grand ko que Firmino mu ngi doon tuddoon Coutinho. Mhm. bu mu fa nekkee moom moo daan star bi. waaye bu mu fa jógee dem Barcelone ñëpp gis nañ fan la mujjee. ci banc bi la mujjee dañ ko mujj sax bàyyi mu dem yoonam ki nga xam ne moom mooy Neymar tey jii nii bu demuloon moom moo naroon Lionel Messi bu fa nekkutulee moom moo naroon nekk porte étendard FC Barcelone mhm. waaye dafa yàkkamti bugg xaalis génn foofu noonu dem Paris Saint-Germain gis nga carrière am tey jii nii fu mucc donc loolu il faut nga def lu pour et le contre mhm. d'abord il y a ce partir aspect sportif bi mhm. l'aspect sportif nag lép loo xam ne war na ko am ci grand club tekk na ko ci Liverpool maintenant nag am na beneen aspect boo xam ne c'est le respect financier. Hmm. wut xaalis te pour man Sadio Mané fu mu toll nii non. teel ko war a continuer hmm. teel na en tout cas buy génn Liverpool ce n'est pas pour partir de Liverpool naan day wuti dara ay FC Barcelone wala naan day wuti dara di dem vers l'inconnu non Liverpool Sadio Mané dem na ko ba am ko wëy am fa tur. am fa teraanga am fa lu muy war a wuti feneen yëpp am na ko fa. Hmm. gisuma lu tax muy war a jógee foofu nit ñi di ko puus muy naan day dem pële le dem ci vers l'inconnu alors que loo xam ne bon loolu dara amul benn garantie bi nga xam ne am nga ko poste boo déplacé nga dem foofu noonu dina tax nga nekk titulaire wala nga nekk leneen loolu wóolu ma ko. loolu hmm. gëwuma loolu man. ci ci gox yu bëri ci àdduna football tàmbaleeti na foot sport sax tàmbaleeti na waaye Sénégal moom yàggaguñ ca officiellement ñu ngi wax ni weerub novembre la ñu war a wëyalaat championnat bi ba xam naka lañ ko defee ci yeneen secteurs lu ci mel ni njàng mi ak njàngale mi yaakaaroon ni war nañoo mën a jéem a dund wala bokk jongante ak virus bi. bokk naa bokk bokk naa si ñoo xam ne loolu rek laay ñaan. parce que nag euh, ligue professionnelle ñu ngi koy mettre en place depuis ba léegi participation état du Sénégal bu weesoo infrastructure maanaam stade état bi mettre à la disposition des clubs te clubs yi dañuy fay pour mun a jouer dañuy fay pour mun a entraîner l' defagul lenn lu jëm ci soutien ligue professionnelle te ligue professionnelle mu ngi en terme d' emploi direct wala indirect presque mille personnes. Hmm. loolu day supp day jàppale état bi. deuxième aspect bi dañu war a fexe ba championnat bi reprendre. parce que Sénégal dafa war a désigner kan moo ko war a mun a représenter au niveau de la coupe de la CAF et au niveau de la ligue des champions africaine. Hmm. ça c'est deux troisième soo ko arrêté tey jii li dal France moo la nar a dal français yi dañu yàkkamti premier ministre bi yeewu benn jour déggoowul sax ak ligue professionnelle bi mais arrêté nañ championnat bi européens yi reprendre ba désigner sax ba choisir sax léegi reprise ligue des champions pendant ce na ñaari club surtout particulièrement Paris Saint-Germain dafa nekkoon ci pas piste ascendante pour cette année ci au moins mu dugg ci demi-finale wala sax mu remporter titre bi loolu lu nekk mënoon na ci xew waaye ñeneen ñi reprendre nañu Paris Saint-Germain ñëw ñu ngi nii léegi à part entraînement ñu def leneen. Mhm. donc loolu yàkkamti ñaxulee la. nañu def ndànk joxe nañ benn date butoir surtout qu'on a repris li gënoon jafe li gën a jafe li gën a jafe mooy xale. Mhm. nga yóbbu leen école jàngal leen. reprendre nañu te yàlla def na ci sutur mu ngi dem normalement. donc football bi aussi mun nañu reprendre permettre nit ñi ñu football même si c'est à huis clos pour mm. deux choses parce que football sénégalais mooy football boo xam ne respecté wul benn norme mm. parce que football jarul sax nga ciy waxtaan football ñette la mu munoo def football amoo télévision Sénégal amul télévision amul benn télévision buy fay ay milliards et milliards xaalis pour jox football amul mm. deuxième chose c'est le sponsoring amul sponsoring troisième chose c'est la billetterie boo dumee match aujourd'hui jia jaraf sax boo ko fi tegoon du tax stade Demba Diop donc amatuñu derby donc boo amul derby amatoo amatoo billetterie amatoo amatoo amoo sponsor amoo télévision li ci munta am fii nii mooy nga fexe góorgóorlu au moins ba championnat bi jeex surtout que cette année ci a fallu que fédération sénégalaise de ni huit cent millions donc mhm. cent cinquante millions bi daf jox ligue professionnelle pour perfuser ko pour mu bal bi mun a circuler parce que li ma la wax ni yëpp dara amu ci pool bi li ci nekk mooy ku nekk day jéem a génne xaalisam pour doxal doxal doxal ay mbiram. Mhm. donc mais loolu c'est un autre débat. autant ils sont très fatigués mais autant aussi la plupart d'entre ñoom respecté tuñu dara. Mhm. parce que ils sont des SA fay fayu nit ñi normalement euh, respecte pas les, tout ce qui est parti dans dans le droit positif Sénégal. Hmm. loolu beneen débat boo xam ne war nañ ko mun a euh, introduire aussi surtout que ligue am na dix ans dépassé na sax dix ans léegi ñu xool exactement faire bilan bi waxtaan ci xool naka la si lan la ñu war a sukkandiku pour en tout cas ñu mun a ñu mun a avancer. Euh, tey jii def na daanaka ab diir ñu ngi taaxirlu ba xam Coupe d'Afrique des Nations daañu ko amal ci weeru naka la ñu ko waxtaanee am déet. xëy na ceeb bi suñu la kaaf dina ci addu waaye ndaxam yaakaar nga ni mën naa nekk ñu daal di respecter bii les dates ndax kon retard bi nga xamante ne am nañ ko. xam nga li nga jot a laaj yëpp question bii nii moo ci ëpp solo te surtout ku man dama bëgg sax ñenn ñi nga xam ne da ngeen nekk di organiser genre débat yooyu. Mhm. Euh, pour permettre à des leaders de s'exprimer au niveau africain parce que gis nga CAF institution la c'est à l'image de la FIFA c'est à l'image de l'UDSAF qui est devenue aujourd'hui World Athletic c'est à l'image de la Comebol ainsi de suite ainsi de te li koy indil xaalis mu ngi tudd Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique bi bu ñu deful attention day dee soo moytuwul kenn dootul football ci Coupe d'Afrique tous les deux ans te loolu Gianni Infantino loolu la bëggoon loolu moo nekkoon mbébétam hmm. pour mu def ko nag it fallait mu daaneel ki nga xam ne moom mooy Issa ayatu daanaka ñun ñëpp sax d'accordu ñu woon Issa Hayatou mu defaat encore beneen mandat. Hmm. beneen septième mandat d'accordu ci dëgg la mais loo bañ Issa Hayatou xam reconnaître ku amoon fulla la ak fayda waaye nag ki fi nekk tey amul benn fulla amul benn fayda je pèse bien mes mots soo deful attention football africain day dee te Issa Hayatou bu muy def coupe d'Afrique de tous les deux ans objectif bi c'était pour permettre à beaucoup de africains hmm. pour ñu am du ñu woowee infrastructure xoolal rek dëkk bi yu mel ni Sénégal bu nekkul woon tey Jeux olympiques de la jeunesse hmm. yi ñuy war a organiser en deux mille vingt deux benn stade dañ ko fi tabax du ñu réhabilité dara tant que africain waxuñu leen yow yaay organiser hmm. maanaam état yi du ci farlu. Hmm. parce que dans les pays africains en tout cas au sud du Sahara. soo ci génnee Afrique du Sud tout est prioritaire. deuxième chose bi. aujourd'hui munoo organiser une coupe d'Afrique juin juillet. depuis bu mu ki nga xam ne moom mooy Ahmad ñëw bu mu ko defee. ci ci ci symposium bi nga xam ne amoon na en 2017 à Rabat ñun journaliste sportif yi waxoon nañ ko. Hmm. dañ ko ne Côte du Cameroun Côte d'Ivoire ay dëkk yu mel noonu Guinée. ay pays Afrique centrale yi munoo fa organiser une compétition en juin et juillet finalement lu ñu lu ñu ko waxoon loolu moo am pour des raisons de météo nee nañu non non non léegi dañ ko ibbi janvier février alors que du dëgg dëgg bi mooy. Hmm. que FIFA ak UEFA dañuy nekk di xeex seen biir. seen xeex boobu nag moo créer li tubaab di woowee dommage collatéral. léegi la CAF est victime d'un dommage collatéral ci diggante guerre wala guéguerre entre FIFA ak UEFA. FIFA dafa bëgg a li ñuy woowee coupe du monde de clubs juin juillet UEFA dafa bëgg football coupe de la nation football aussi coupe d'Europe juin juillet Copa América juin juillet day am. Mhm. Jeux olympiques juin juillet lay am. léegi Afrique fan lay war dem pour mun a football coupe d'Afrique am amatul place. éliminatoires yi six journée la ñaar lañ ci defagum il reste quatre fan ngay trouver quatre dates FIFA pour mun organiser éliminatoires yi pour mun a encore préparer une pour mois de janvier et en deux mille vingt et soo moytul coupe d' afrique ci am deux mille vingt deux il y aura encore autre chose. kon pour am fi ñu porox ndollu dina jafe lool beneen mbir mi xëy na ñu jeexale fa mooy jamono ji gannaaw ba mu méttee dëgg gannaaw ñetti weer yoo xamante ne ngir taskatu xibaar yi nga tu ci wàllu tàggat yaram ngir ñu feesal seen i kon page wala sax def seeni i émission ci anam yu waree jafewoon na lool waaye depuis daanaka ay bis ngi ni mu mel ni yëf yi xaw naa am ab tànn waaye waaye xam nga loolu loolu question bu bu am solo xam nga situation yu mel nii bu amee il faut que nga réajusté waat il faut nga réadapté waat. Mhm. surtout nag Covid 19 bàyyiwul benn secteur. loolu moo tax man dama doon ñaax rek suñu ay naataangoo yi nga xam ne dañ nekk si wàllum sport d' abord boo nekkee ci organe. sport dañ koy généralement duñ ko jox cëram. Mhm. yow yaay war a xeex nag pour won leen ne sport du tàggat yaram kese dafa am beneen aspect économique. Mhm. te loolu da nga ko war a def da nga war a sa kéemtulaay kattan pour sa rédacteur en chef xam ko sa directeur xam ko. sa ministre des sports xam ko sa président de la république mu xam ko. Hmm. ça c'est un. surtout nag période yu mel nii nag jeunes yu la plupart su fekkente ne amul activité maanaam amul championnat dañuy dañuy nekk lu ñuy woowee période de vache maigre. Hmm. donc soo moytuwul rek seen desk day dee. Hmm. da ngay gis ay organe de presse yoo xam ne ay desk yoo xam ne ay page yoo xam ne dootul amati sax ay journaux yoo xam ne dootul amati sax parce que dootuñu amati matière. ci ngay xamee nag journaliste yu xarañ yi parce que il faut trouver des angles par exemple revisiter. ce qui s'était passé en 65. Mhm. en 1968 Tunisie Tunisie Asmara. Mhm. ñëwaat ci Sénégal ki ñëwaat ci derby yi fi amoon. yo mhm. il faut faire preuve d'ingéniosité. ak ay portraits sax voilà pour nga mun ko kii. loolu moo tax ñun ANPS bu ñu réfléchir bu baax ñu ne ah peut-être que ñëpp ñu am possibilité boobu mais ñun tamit dañu fexe léegi chaque week-end. comme championnat amul chaque week-end ñu invité benn euh, personnalité sportive mu ñëw wax ak ñun pendant une heure comme ça léegi son bi. ki nga xam ne mu ngi nekk télé wala mu ngi nekk rajo ñoom ñëpp dinañ ko mën a utiliser ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk si presse écrite wala si site yi aussi ñoom tamit ñu mën ko utiliser comme ça ñu jàppale suñu ay naataango pendant toute cette période là fii ñoo xam ne au moins quand le sport a essayé de faire quelque chose. jot naa génne gars ñu bëri ci kon coono gi ñu <laughs> leen ci kon félicité bu baax a baax di leen ci encouragé kon Abdoulaye Thiam maa ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di la sant euh, Gomis di gërëm di sant aussi l'ensemble de la direction de Rewmi je vous encourage davantage aussi fàttali kon yow yaa njiital ANPS di association nationale de la presse sportive fii ci diwaanub Sénégal.